asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am contentement ak mbégte di leen dalalaat fii seen chaîne Dakar People tey nag ñu ngi waat fii parcelle croisement 22 si Serigne Babacar Sarr borom rawxaani Serigne Babacar Sarr nuyu nañ la. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani alhamdulillaahi rabbil aalamiin rahmaani rahiim maaliki yawmi diin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdinas siraatal mustaqiim siraatal laziina mbokk jullit yi mbokk Sénégal mbokk Afrique mbokk monde ba yëpp képp ku jonow ñu ñu ngi lay di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. sëriñ bi fay nañ la tey nag ñu ngi waat seeti la fii daanaka habitué nga si site sax kenn dootul la présenté macha allah tey nag ñu ñëwaat fii seeti la parcelle croisement 22 bëgg amalaat yow waxtaan si ay pàcc yu lim yu ñu mel nii si wàllum sëy noob ñi am jafe-jafe seen sëy wala ñi nga xam ne dañu. am bëgg a sëy amuñu jëkkër mu doon lu leen jafe ñu bëggoon tey ji nga waxtaanal ñu si wax ñu si wàllum nopp tamit ak tamit saafara yi nga am si jàngoro yu ni mel wala jafe-jafe yu ni mel. alhamdulilah sant yàlla bu baax a baax a baax ñu ngi leen ñu nuyuwaat mbokk yi képp ku janoog ñu ñu ngi lay nuyu di leen ñu leeralawaatal mbir yi rek ñooñ man man Serigne Babacar Sarr borom rawxaan yi di leen ñu leeralal lépp parcelle correspondant 22 ah, kii dadi di boo xamante ni imuutu benn nopp waaw ndax nopp bi euh, xam naa moom écran bi ñu ngi koy doog gis danañ koy liggéey buñ ko liggéeyee meew lañ koy booleeg lu demee ni meewu nag wala meewu bay suul ko ci ñetti étape buntu teen buntu robinet buntu géej nopp bi nekk na nopp boo xamante ni bépp euh, jigéen joo xam ne bëgg nga borom kër incha allah buñ la ko liggéeyalee kooku dana la takk ci lu gaaw a gaaw a gaaw bu fekkee daf la wonoon gannaaw bu dee góor goo xam ne dafa bëgg soxna topp ci mu tëb fii ci ba tey buñ la koy defalee incha allah bu soobee yàlla moom it dana la retourné waat dégg nga ba mën ngaa jotaat ci moom. quant ba ci ñaari diggante ñoo xamante ni dañoo am ay jafe-jafe diggante yu naqadi moo xam muy sëy moo xam lu mu mën a doon rek nga bëgg neexal seen diggante am na buñ ko liggéeyee ci étape yooyu ma la wax ci dañ koy def te buñ ko ci defee incha allah bu soobee yàlla. jafe-jafe yooyu yàlla dana ko teggi moo xam nag nga nekk fii si Sénégal moo xam nga nekk euh, ci réew Afrique boo mën a ne wala bitim réew réew moo mën a ne sëriñ Babacar Sarr borom rawaxaan bi ci jëflanteeg yow sa aajo dana faj ba tey am na suñuy turi rawaxaan yi ñuy liggéey yooyu moom suñu liggéeyu bopp la ñu ñooy toog liggéey ko sikkar ko yónni suñu rawaxaan yi fañ bëgg mu dem mu dem fa fajal la sa soxla soosu ci wa mbiram nopp boobu ci lu gaaw a gaaw gaaw moom ci lay dox moom. macha allah tontu bi am na solo xam naa dañuy jàll ci question bu ci topp rek mooy ñu bëggoon waxtaanee sa mbiru ndomb yi parce que yàlla may na la si wàll boobu loxo bu gudd. waa mbiram ndomb yi moom di ko présenté wu war rek. ndomb yi moom nekk na ndomb yoo xamante ni ñi ñëpp a ngi koy laaj ndomb bii bii nee naa woon ne ci tàkkatik ci lay dox tactique boo ko déggee mooy ku la naranoon olimee bal pistolet bëggula koo dóor bal bi du tàkk dégg nga ku la naranoon jëm paaka paaka bi ci boppam du dugg dafay lemu mais du egsi ci yow jaasi noonu weñ noonu loolu moom moom yooyu ci lay dox yii nag tul goo xamante ni bu wér la ndax euh, faran fàcc nañ ko ci boor yu bëree bëri bëri essayé nañ ko essayé waat ko te jox nañ ko fi ay nit niti nit bañ garante ni wan nañu lii lu wér la moo tax léegi ñu di ko dofaleke nag pour jaami yàlla yi man cee jot mu mën leen a jëriñ surtout réew mi jamono ji ñu toll nii ci réew mi bitim réew yëpp léegi dafa yàqu ndax da ngay nekk di doxi say soxla ñu bett la dóor la ban bu fekkee am ko yàlla mën na ci am musal da ngay doxi say soxla ba tey ñu bett la jam la wala ñu caw la jaasi wala ñu dóor la yet wala ñu dóor la weñ koo xamante ni mën na laa rey ci lu gaaw te yooyu boo ko amee mën na mën nga cee mucc yaa xam nga nekk fii wala nga nekk bitim réew wala réew moo mën a ne foo mën a nekk rek mën nañ cee jëflanteeg yow te incha allah yàlla dana la musal ci yooyu yooyu yëpp danañ di dégg ba tey ñi naan tul wala tàkkatit wala dégg nga boo ko boo ko takkee daf lay tëj waaye gii moom bokkul ci gi nga xamante ni dafay tëji gii daf lay ubbi ndax jàpp nañ ko ci yu bëree bay jàpp nañ ko ci ayatal kursi yu laqad jaakum alam nasra isa lexlaas falaqi naasi dégg nga amunu rasulu yooyu yëpp jàpp nañ ko ci dégg nga ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni dañ ko see boole loolu kon ku ko dégg war ngaa xam ne lii lu wér la ku ko képp ku ko yor daal moom mucc nga ci balu fetal moom képp ku ci bëgg mucc rek yor ko wala jaasi wala paaka wala weñ lu mën a doon moom loolu ci lay dox gi ci mbiram pëlise ci lay dox ñeneen woon ne ku bañ pëlise yi jàpp la di la sonal takkal ndomb gi boo ko takkee policier du la arrêté yaa xam nga yore marchandise di ko jàllale su boobaa marchandise mi dana jàll yaa xam ngay eh, nga yore ay bagage dégg nga di dox bañ ñi bañ ñi ramasse la su boobaa kenn du la ramasse ba ci sa kanta mucc nga ci kaso kéeg yaa ngi moom kenn du la tëj kaso c'est direct dund nag boo duggee ci oto da ngay mucc doo def accident dégg bañ bandi du la agressé kenn du la agressé mucc nga ci yooyu yooyu yëpp tànk yaa ngi moom moom it neuf bunt la bunt bi ci njëkk dégg nga liggéey nañ ko ci wattiini saar bu ñëw wattiini wa zeytuuni wa tuuri siini wa haza baldi amin laqad xalaqnaa insaana fi axsani taqwiim summa radadnaa asfala saafiliin inna llaziina aamanuu wa amilu saalihaati mu ne fa lahum ajrun xayru mamnuun fu maa yukazzibu ba'su bi diini alaysa llaahu bi haakimiin loolu liggéey nañ ko ci ay lim nag lim yi nag duñ ko tudd waaye nag képp ku ko jëfandikoo daal ci ñu la wax nii yëpp yàlla musal na la ci kii ci mbiram këyit ci lay dox nee naa ne la képp koo xamante ni bëgg nga déposé nga ay kayit bëgg mu génn ci lu gaaw a gaaw a gaaw wala tamit nekk nga ci liggéey bëgg liggéey bi marché ci lu gaaw nga mën a bokk ci borom am-am yi borom alal yi. takkal ndomb gi ndomb gi boo ko takkee ci distance vingt et un jours waxoon naa ko fi waxaat ko fi bu fekkee déposé nga kayit k yooyu dana génn ba tey bu fekkee ba tey dangaa bëgg alal ci boppam teraanga ju dëppook jamono ñëwal la ci anam yu nekk boo ko takkee moom yàlla dana dénk yooyu alal moom da nga koy am ci lu gaaw a gaaw gaaw ci jamono ju ne moom i nag jàpp nañ ko ci sa aaye bu ñëw asina finaati bi xaaj yi yetti këri jaalan xalaa kulli daayam ne yetti na min kulli fajin xamiqin loolu lu leer la ndax yonente sallallahu alayhi wasallam bi mu nekkee ci màkk di woote diine lislaam pour gars yi wuyu si ko kenn nanguwul ñëw léegi ci la ko yàlla wàcceel aaya boobu ne ko yonent bi demal toog li ngay woote nii yëpp dañ la mu ñëwal ba nga xam ne ñëwal nañ la moo lay xamal ne la képp ku ko jëfandikoo moo xam këyit yoo mën a soxla këyit yow dana la fekk si fi nga ne bu fekkee tamit am am la koom-koom ci àdduna moom dana fekk ci fi nga ne te doo ci am benn coono moom it loolu ci boppam ci lay dox macha allah tontu bi am na solo leeral yi am na solo ci wàllu nomb yi xam naa dañuy jàll tamit ci question bu si topp rek moom tamit ñu bëggoon waxtaanee ci wàllu xaatim yi ak tamit sunguf yi. xaatim yi euh, ma leeralal leen xaatim bi <clears throat> ndax nee nañ ne euh, xam-xam boo ko yoree da nga koy feeñal daal xam-xam waroo ko nëbbu toog rek naan yor naa lii yor naa lii mais li nga yor da nga koy wone jaami yàlla yi mën koo gis. man cee jëflante ak yow waaye nag bu fekkee won wonewu ko dafay nëbbu te lu nëbbu kenn du ko gis luñ luñ gisul nag du feeñ waaw xaatim gi ci li muy dox maanaam bu fekkoon ne dañ laa liggéey ba fi nga toog mënoo fee jóg wala fi nga tëdd mënoo fee jóg lii boo ko jëfandikoo danañ yekkat dañ ci lu gaaw a gaaw a gaaw gaaw jox nañ ko fi ay nit jox naa ko fi benn soxna soo xam ne mu ngi nekk Kaolack dégg nga dafa dafa feebaroon ba fi mu tëdd mënu fee jóg waaye keroog bi mu ci naanee balaay ngoon jóg na dem doxi soxlaan waaw kooku jox nañ ko ko kii ci yooyu ci lay dox ci mbiram defander te képp ku la nara dal sa kaw kooku moom moom dafay yàqu partout moom dutu ko nettali moo xam ñi sànni la kortu wala ñu boole leeg rawxaan gu soxot wala jinne wala ñu boole laa rab woo xamante ni dafa wala ngelaw sax kanta ngelawal seytaane solu si sa yaram bi ba nga xamante ni mënootoo def dara wala am luy dox ci sa yaram mu rab wala nit ma kantaasa ba ci feebar yu bon yi nga xamante ni dafay dugg doomu aadama loolu boo ko jëfandikoo mën naa dagaasiwo ci yow partout dégg nga te lii ba tey danay dox ci mbiram place moo xam barabu liggéeyukaay lu demee ni ay entreprise ay société yu am gàllankoor dégg nga wala nga nekk ci magasin boo xamante ni dafa am jafe-jafe mëntu dox mënoo faa jëriñoo dara loolu boo ko fa defee incha allah boo ko boo ko xoojee boo ko fa wisee problème yooyu ya fa nekkoon yooyu yëpp dana dañ bu dee euh, entreprise tamit noonu ba tey bu fekkee ba tey da ngay yëngatu ci mbiram lu demee ni ay politique mëntu dem wala ngay yëngatu lu demee ni ay mbootaay yoo xamante ni yu yu am doole la te mëntu dem yooyu bi ngeen ko jëfandikoo gàllankoor yooyu yooyu yëpp mën naa dañ moom ci yooyu ci lay dox am na nag nuñ koy liggéeyee am na heure bu ñu koy liggéey am na waxtu yu ñu koy liggéey am na bés yu ñu koy liggéey yooyu yëpp suñu mbiri bopp la am na tamit ay ñaan yi ñu ciy def si suñu rawxaan yi yooyu yëpp ba tey suñu mbiri bopp la liñ ci mën a dénk jaami yàlla yi daal képp ku ko jëfandikoo ku nekk moom sa problème moom jeex na ci kaw suuf sa feebar jeex na ci kaw suuf moom yooyu ci lay dox ba tey eh, bii moom bii moom wërsëg moom li ma lay wax moom bu fekkee bëgg nga xaaja xaalis di ñëw ci jamono ju nekk sangoo ko ndax kii la wax sabaax sabaax sabaax sabaax bu dee yéen xamuleen ko ñi may dégg ku ci am xam-xam da ko dégg da war nga koo xam sabaax sabaax mag ñi ci boppam maanaam wàllu yàlla yi ñoo daan ko fiy joxe ci jamono ji de atam guerre mondiale daan fiy am guerre yi daan fiy am réew àdduna bi crise kenn mëntu am dara nit ñi sonn lool gannaaw gi ci euh, sabaax sabaax bi wàcc dañ koy euh, def maanaam juróom-ñaari fatiya juróom-ñaari alam nasra juróom-ñaari euh, wa alqayta alayka mahabbatan minni juróom-ñaari wa asina finaasi juróom-ñaari zuyni juróom-ñaari lixlaas juróom-ñaari dégg kii juróom-ñaari lixlaas juróom-ñaari kawsara am na yeneen ak yeneen yu muy ba tey yooyu yooyu moom jërul tudd ndax kenn du wax lépp waaw boo waxee lépp lu ko may xam na gaa yoo xamante ni dañ koy sàcc daal waaw mu ngoog loolu moom mooy bunt bi waaye en tout cas daal képp ku ko jëfandikoo sa wërsëg dana ubbeeku say mbir dana gaaw sa am-am dana yokku dana nga mën a bokk ci borom trang yi ñii am ay dëkkuwaay waruwaay am-am bu bëree bëri ñi dañuy dégg ci jamono ju ne ñii mën a def lu ne di dem fu nekk loola yow yàlla dana ci dimbale ci boo ko jëfandikoo am na nag jour yi koy jëfandikoo am na tamit nuñ koy jëfandikoo loolu moom ñi ñuy dégg keroog bu ko nit soxlaa rek boo ñu contacter rek su ko defee mën nañ laa wax ni muy demee yooyu yëpp mën nañ la ko gën a faram fàcceel pour moo gën a leer ci yow moom loolu ci lay dox léegi sunguf si euh, sunguf si ci boppam nee naa ne pour nga am ko il faut nga wër ñaar fukki armeel ak benn ñaar fukki armeel ak benn yoo xamante ni koy wutee su ko defee dañ fa fekk géejaan gu fa sax nga xas xas mi rocc ci xob yi dëbb ko ba mu nekk sunguf moom lañ koy booleet danañ koy booleek dégg ñetti juróom-ñaar ñetti juróom-ñaar yoo xamante ni dañ koy jàpp ci juróom-ñaari asamaan juróom-ñaari suuf juróom-ñaari bés dégg nga li muy jëriñ cat lay dindi bépp cat boo yoroon cat vingt ans ci gannaaw tamit boo ko utiliser woo dana dañ moom loolu ci lay teggee ko ndax nee ne cat dalay topp ba sa biir bàmmeel waaye nag boo xamee sëriñ bu ay mën naa mën naa ñàkk yegg ci biir bàmmeel ba waaw loolu lii daal li ma la ciy dénk daal képp ku ko jëfandikoo cat li nekkoon ci yow yëpp dañ na ci kaw suuf moom doo nga tàggoog cat beneen bi sunguf si ci mbiram bayra la mais bayra bu ànd ak xaalis nag waaw du nekk bayra coow coow yi kese rek foo xaw nit ñi weej wax wax wax wax wax wax ju bëri loolu jëriñu loolu taxul ñu naan bayra bayra dafay ànd ak ubbeeku bayra dafay ànd ak wërsëg am-am bi du dugg normal lépp dox ci yow dara du taxaw bayra dafay ànd ak tamit nga gën a amante nit ñi connaissance ñii lay nangoo dimbale ci la jàppale ci anam yu nekk ca na ko bëggee bayra dafay ànd ak fépp foo nekk rek foofu moom dafay dox mais foofu du deltu gannaaw mukk bayre dafay ànd tamit nga am ak sa waa kër jàmm ndax loolu tamit ci bayre ci la bokk seq ak ñoom jàmm doo xam ak ñoom benn jafe-jafe loolu ci bayre ci la bokk bayre tamit dafay ànd ak fépp foo bëgg a dem man faa dem loo bëgg a def man kaa def lépp loo wax tamit nit ñi nangu laa déglu te nangul la ca wax jooju loolu tamit bayra dafay ànd ak loolu loolu nag moom lañ leen liggéeyal nii defal leen ko mu nekk sunguf sii jàpp nañ ko ci yu bëree bëri bëri bëri bëri dégg nga jàpp nañ ko ci fatiha jàpp nañ ko ci alam nasara am na benn lim jàpp nañ ko tamit si suñuy turi rawxaani yi ma la waxoon sànq benn bu nekk ci la muy dox jàpp nañ ko ci yooyu kon ku ko jëfandikoo yàlla mën na laa dimbale bu dee mbiram bayra rek la bayra moom da nga ko am te dana ànd ak koom-koom ak xubbeeku bu baax a baax a baax macha allah leeral yi am na solo xam naa dañuy ñëw bàyyi la nga tàggoog mbokki internet yi. waaw li ñu tàggoo mbokki internet yi léegi problème yi bëri na lool nit ñi am nañ ay problème trop sa problème yu du jeex ak kenn ku nekk ak sa problème ak nam demee ca yow waaye daal képp ku bëgg sa problème jeex dégg nga ñëwal Serigne Babacar Sarr borom rawxaan yi mën naa dindi sa problème ci lu gaaw a gaaw a gaaw dégg nga jamono jii nag euh, sëriñ si bëri nañ trop comme li ma daan wax rek waaw waaye ku nekk war ngaa xam li nga man ak li nga mun loolu moo ci gën a am solo résultat rek moom moo am solo wax bi neex na communication neex na waaye résultat moo am solo waaw lépp looy defal nit ki rek war ngaa faxe mu am résultat ci boppam ndax résultat dafay maye ndam lu rëy même yow sëriñ bi ndam la ci yow waaye ndam la tamit ca kala sant liggéey ba kon loolu rek am solo képp koo xamante ni dégg nga suñu wax ji lépp lu ñu leen wax fii rek méritoo naag mu nekk loo xamante ni ñun lu ñu man la ndax luñ mënul rek duñ ko wax ndax doomu aadama mënul lépp yàlla rek a man lépp kon ñu ngi ñaanal yàlla na yàlla yëkkati site bi internet bi yàlla doxal ko euh, fi ngeen ci bëgg a yegg yëpp yàlla yeggale leen fa ñu tamit yàlla defal ñu jàmm defal taalibi yëpp jàmm waaw problème yëpp yàlla faj ko ci barkaar Quran wasalaamaaleykum